muy conseiller spécial aux affaires religieuses euh, bëri na euh, mooy sa taxawaay mooy sa fonction foofu la mairie de la ville de Dakar euh, mais liggéey bi foofu ak taxawaay bi nga xam ne moom nga fa amee ci wàllu woowu lan la doon balaa ñuy dugg ci biir débat bi. waaw mooy lépp daal soo bëggee dégg daal di manière générale mooy lépp parce que Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xamante ni diine daf fi imprégné wu daf fi am empreinte bu am solo. te bu ñu nee des affaires religieuses diine yëpp dugg nañ comme ni ñu koy waxee rawatina diine ji nga xamante ni ñun moom lañu gëm muy diine l'islam eh, loolu nag liggéey ko dafay jafe mën naa ni ci neuf domaines de compétence transférées yi nga xamante ni moom lañ ñu dénk ñun li ci ëpp amul kenn kuy jóg te doo ko accompagner moralement doo ko accompagner physiquement di ci gën a métti nag mooy wàllu xam nga ibaadaat yi am na koor am na Pentecôte am na carême am na li ñuy tudde aj màkk am na pèlerinage Rome am na yi ñuy tudde gàmm am na màggal et tant d'autres boole religion yëpp la boole yëpp la boole yooyu nag dana ci laaj moom mu tànn ci koo xamante ni da ciy tëdde njaaxaanaay bañ ci wone ak féeteem parce que tëdd njaaxaanaay moom la yàlla nekk yonent bi nekk ko ci lu war a mën a nekk lu war a mën a satisfaire ndakaaru ak li ko wër ci wàllu diine ak ci wàllu jaamu nga ko ci xelal ak di wut ñu ko ci xelal ak di ci taataan xelam d'abord bu ñu demee ba nga xamante ne xel yépp daje na dernier mot yi mu ngi génn ci ki nga xamante ni moom la yàlla dogal mu jiitu muy monsieur le maire le grand maire Barthélémy Toye Dias waaye foofu danañ ko sant di ko gërëm ndax daf ci am jeu role bu mu ci joué bu am solo mooy ni euh, ku nekk da nga koy jox la mu yellool mm. aati kulli di xaqin xaqahu boo ko defee rek da ngay noppalu moom dafa nekk nit koo xamante ni du la jox benn mbir ba pare di la topp naan la nii nga war a def la det yow yaay wuti ay outils yoo xamante ni mooy tax ëllëg waa ndakaaru retour bi muy am moom mooy wane ni yow li mu la jox yaa ci defal li nga xamante ni moom la sa autonomie si charge bi maanaam c'est ça autonomie totale ngay am mais retour yi lay seet moom retour yi bu defee un an amul retour bu positif dana la wootaaj la ne la ah mais alors nu mu demee noonu su ko defee nga indi kii mais nag c'est compliqué nag hmm. parce que nag boo seetee Sénégal Euh, boo satisfaire ñëpp ñëpp ñëpp budget budget maire budget nu ñu tuddee ti ville de Dakar dana ci yem surtout màggal yi surtout gàmm yi te doo sañ taxaw ne kii dama koy seppi def kii koor gi rek li ma la mën a wax génn nañ ci trois cent tonnes de riz sama tànk ak tànk ki nga xamante ni moo yor affaire sociale kon nga xamante ni doom bu mënti doon nekk bokk man kii bu mu mënti doon commission bu mu mënti doon man maa ngi ci biir ñoo ko wër séddale grande mosquée Massalikul Jinaan kër ki diine yi yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Ndakaaru koor gi ñëw de même nga wër ci église yi joxe sukkaru koor lu mosta am sax moom moo ko créé ren ci eglise yi joxe pañe koor boo dugg ci kooru jullit ñi dafa taqaloo kooru catholique yi nga dugg joxe sukkaru koor def ko ci anam boo xamante ni ba fii may waxee yow tey maa ngi dugg ci aj màkk gi ça fait presque un mois man dama déconnecté ci mairie de Dakar maa ngi euh, maa ngi hangar pour jël preneur yi nga xamante ni moom lay yóbbu moom yàlla dafa dogal xol bi moo yaatu bu fekkoon ni dañuy yóbbu vingt bu fekkoon ni ñi fi jaar vingt pèlerins la ñuy yóbbu ci seen ci seen euh, ñu ngi koy tuddee ci jamono bi ñu leen fale moom tey doublé na ko wala mu romb ko ngir mën a satisfaire nit ñi ndax bi muy dugg si daf ni mënuma fi fekk un te duma ci teg deux wala trois mais yàlla dogal na ren ñu ngi yóbbu cinquante et quelques personnes. ci Dakar bi ñu bokk. ci Dakar bi ñu bokk mais macha allah. Mm-hmm. te ak cité ak noo xamante ni nu rafet la nu gën la noo xamante ni moom. Mm-hmm. amu ci lu dul joxe ndigal ñun ñu topp ko ba ëllëg ñi muy yóbbu bu ñu dellusee retour ba muy am day doon retour boo xamante ni macha allah. sélection bi nu muy demee ci cinquante yooyu. vote lay doon. Euh, maanaam bu dee personnel bi dañuy am personnel ñu jox leen seen quota ñoom ñu dem def seen xaw ma nu ñu ko tuddee ti jën bind seen i tur. mais nag ñu ngi koy jagleen ñi nga xamante ni ñoo nekk en phase de retraite retraité maanaam euh, dese na leen euh, quatre ou trois mois yoo xamante ni dañuy retraité ñu dajale leen jël seen i tur bind def vingt yi génn 17 la ñu woon ci reñ yi passé reñu madame Soham Wardini ak ñi ko jiitu. mais à l'heure actuelle ñu ngi ci 20 maa leen yokkal 3 yi ci ndigalal maire ñu nekk ci 20 mu walbatiku am li ñuy tuddee populaire nit ñi nga xamante ni ñooy te bind demande ne damay ñaan maire bu ma mënee boole ci ñi mu yóbbu màkk ñooñu mu seddee leen 10 yi ci des mu seet ñi nga xamante ni ñoo ko yellool 20 yi ñu tasaare ko muy 50. d'accord. waaw nii donc euh, je pense que leer na par rapport ak taxawaay bi foofu toppatoo nañ ko ba ñoom ñu ngi war a départ le 26 incha allah. très bien alors dañuy gannaaw loolu euh, dañuy dugg imam xalifa Ababacar Ndiaye ci li nga xam ne mooy actualité bi mm. euh, démb dëkk bi tàngoon la lool mm. affrontement yi bëri woon na mm. mu ngi euh, bawoo nag ci. rassemblement boo xam ne Yewwi Askan Wi muy ñaareel bi annoncé woon na ko waaye préfet bu Dakar daf ko interdire balaa ñuy ñëw ci interdiction beeg motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué euh, nag ban jàngat ngay def ci li nga xam ne moo xew ci Dakar ak ci yenn endroit yi ci dëkk bi rawatina fële ci Ziguinchor. jàngat la boo xamante ni tout d'abord dañuy jaale ñi ci décédé. Hmm. dina ñaanal yàlla yal yàlla xare leen aljana hmm. euh, di ñaan yàlla mi mën xam sañ. yàlla na def ci xolu ñaar ñi ko séq ba lu mel ni effacé wu fi dañ fi bu dañee rek dootuñu sonn te ni muy dañe nag mooy kenn ku nekk nga jox sa cër ak àq ak yelleef ak sa morom bu ko defee dund bi day daal di noppalu day daal di équilibré wu mais boo bëggee xañ ki nga xamante ne àqam ak yelleefam loolu mooy indi la plupart débordement yi nga xamante ni moom ngay gis te kenn séentuwu ko kenn ñaanu ko yàlla Euh, mënuñu dëkk ci mënuñu dëkk ci saa yu ñu dajee bakkan rot mënuñu dëkk ci saa yu ñu dajee matériel yàqu mënuñu dëkk ci saa yu ñu dajee hôpitaux yi dootuñu ànd teg seen sago mënuñu dëkk ci saa yu ñu dajee ku naroon a liggéey huit heures ba dix huit yaa ngi fexe liggéey ba dix heures bu dee ni quinze heures la ñu autorisé pour ñu pour ñu kii quinze heures la ñu war a def rassemblement bi. Mm-hmm. nga jóge sa kër huit heures dix nga taxañ say bagages dem. léegi heure yi ci des dañ la koy fay ñun dañ la koy fay mais loolu mënoon nañ ko éviter nan lañ koy éviter man ci sama gis-gis boo xamante ni gis-gis bu doyal la dañu ne waxuñu demander dañ ni la da ngay yëglu yëglu bi xam nga lu ko waral neewuñ la soo yëgloo ñu ne la mën nga ko fee defoo la déet dañ ni la soo yëgle danañ la encadrer jox la ay force force de l'ordre moo xam gendarme la wala police pour ñu encadrer la pour dara bañ a am faay mais ki ñëw di yëglu respecté na li nga ko tëralal yëglul nga ko wax waxoo ko ñaanal ñoom li ñuy joxe moomuñu ko moomuñu ko dañ leen dénk nation bi moo leen dénk te dañ ni leen li ñu leen dénk ku ci bëgg jël lii na yëglu yëglu bokkut ak na demandé na ñaan il faut nit ñi di xool mooy ni muy tëddee surtout ci wolof gi bu ko defee ñii déglu te dégg wolof danañ mën a comprendre dañ ni la yow ñëwal nga yéglu ne suba dama war a jaar fii ñoom bu fekkee ni foofu dafa fat dañ naan la foofu dafa fat doo fa mën a jaar jëlal beneen def nañ ko fi daaw moom mag moom président Macky Sall def na ko fi avant muy falu benn marche bu ñu doon euh, demandé ñu ne mënuñu koo def place de l'Obélisque ñu ne place de l'Indépendance lañ ñu ko noonu ñu ne munuñu ko fa def parce day am trouble trouble xawma à l'ordre public ñu ne dem ñun dañuy dem ci monument ñu ne mënu leen ko fa def ñu ne leen fan lañ koy defee ñu ne ñu dem leen rond point ñu dem rompoint point defee ko fa jàmm na ñooy suñu droit la ñun suñu moomeel la mais malgré droit beeg moomeel bi dañuy dégg souvent ngeen wax autorisation wax demande et pourtant si régime déclaratif la ñu nekk. li ñu bind ci texte yi uh-huh. li ñu bind ci texte yi mooy yëglu ñun li ñu war a def ñun en tant que opposant yëglu lañu ñu war a def suba wala gannaaw suba danañu taxaw fii jàmbat li ñu naqari yow mii ñëw muy préfet wala muy gouverneur amuloo sañ-sañu ne du ngeen ko fi defee nit ku nekk bu xamee fa mu war a yem xam li mu war a def Sénégal du yëngatu mercredi passé def nañ ko fi dëgg la wala déet mm-hmm. xale yi dañ doon taxaw di déglu ndigal Abdou Khader ndigal la ñuy xaar et pourtant bu ñu leen joxoon ndigal kon tubéy dana tooy mais dañu taxaw ne leen ñun waxuñu ay affaire u ndigal bu dee lu ñuy joxee ndigal ndigal li dana jib mais noonu ngay calmer sa njaboot mais bu desee lu dul lu dul li nga xamante ni mooy maîtriser xale yi ba li ñu war a wax ñu wax ko dellu bu fekkee ni nag dégg nga fa kàddu kàddu gi métti la mais kilifa yi ñii ñi ñu jiite nañu xam ni nañu jàngaat àdduna dafa am sa benn kilifa nee na wax jompul mbuus. mais est-ce que yenn kàddu yi tamit. Euh, non nu mu mënti demee wax jompul mbuus. maanaam waaw ah, kañ très bien. xam nga tey ki jël sachet bii. Mhm. sachet glace. à la place de l'eau mu téye ko ubbi sachet bi di wax di wax di wax di wax ba jant so. mu takk ko ba mu dëgër. mais Abdou Khadre boo ko tegee ci balance pesé que lan lay jëriñ. Hmm, du am benn poids. xam nga li ëpp solo boo demee ci alquran yàlla wax na ko wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu saalihat jëf moo am solo ñoom dañu nekk ci phase jëf ñu ñu nekk ci phase wax ni ñu leen nangule seen jëf donte légalul noonu lañ ñu war a nangule suñu wax mais kiy jëf buy jëf muy métti kiy wax di wax nga gaññi ca wax ja mais seetaata sa bopp Abdou Khader lii mooy wax ji leneen du wax. mais c'est manière de justifier peut-être li Baara Dolli wax. non non non non waxuma Baara Dolli waxuma waxi Baara Dolli dama ne. Hmm. mën nañ tënk waxu Baara Dolli waxu euh, président Ousmane sonk hmm. waxu prés euh, le grand maire Barth dama ni dama wax wolof ñaara fi am kuy jëf ak kuy wax. Hmm. état dafa yor dooleem. di ko exercer ci biir askanam. yor force am yor antidémocrate di ko jëfandikoo ci ay askanam. léegi ñi mu koy jëfandikool ndax dañuy croiser la bras seen loxo toog ne dee leen ñu ko teg rek nit ki lu mu nangu teg ko ko dagan na boo ma tegee lu diis danaa onk mais onk googu lañuy ñuy bañ nañ la teg lu diis te doo wonk fu mu am Abdou Khadre nañ ma ko wax loolu mooy coow li bu ñu reglee lool bu ñu reglee seen jëf yi yi ñuy teg askan wi te askan wi mu neex mu naqari nanguwuñ ko askan wi nag bu ñu dee 15 millions. mais 5 millions mën nañ ko nangu mais 10 millions duñ ko nangu man du ma nangu benn doomu aadama di ma teg lu àttanul te yàlla tegul ndax kat mhm. laa yukallifu llaahu nafsan illa wusaha abdou xaadar buñ ko defee rek noppalu nañu bàyyi teg yi ñuy teg nit ñi lu diis ba mhm. pare ni nit ñi duñu wax dañuy wax man maa ni président Ousmane sonk booy noppi ma lay attaqué booy noppi di yàqu mhm. wa répété naa c'est la énième fois buy noppi du yàqu te du mos a noppi te gis nga waxam boobu mooy defar lu bëree bëri parce que jëf ji méchanceté moo ko lal te du dem. d'accord si biir jëf jooju euh, rassemblement bi nga xam ne moo waral lépp euh, lii nga xam ne moom la préfet wax ne mbir mi mënuñu ko autoriser bien que ci information lañu ñu war a nekk régime déclaratif la nee na.